salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sports 221 dañu koy tàmbaleeg pré-saison bi niki big Barça la doon match amical digentem ak Manchester City ci Amérique la bobu nak goudina na nak match bobu dé dañu gis né Barça mo ci mujjé am ndam ci penalty ndax deux partout lañu démé ci biir match bi Barcelone mo ñëk marqué ci 22e minute ki nga xamné mo lañu wax Po Victor mo marqué waaye nak ñi ni Man City dal di ñëw égaliser ak ki nga xamné mom lañu wax Aurélie Pablo Torre dal di ñëw yokkat benen bit ci 45 plus 2 minutes manam ci temps additionnel bi ci premier temps bi waaye biñu ñu dellusee ki nga xamné mo Jacques Grealish mo ñëw dal di égaliser voilà ci 60e minute de partout match bobale nak bari na ay gona yo xamne day bokkuñ ci équipe première du Barça wala bok ci côté Manchester City ñom itam bokkuñ seen équipe première ño xamne amé nañ ci chance jouer ci voilà comme ni ngeen ko xamé bu ngeen gisee score rek di ngeen xam amna ci ay gan kon lolu moy li nga moy score final bi manam bok ci 90 minutes yi bi ñu demee ci li nga moy tiro bi te nak nag ci la Barça dal di am ndam voilà dal di dugal ñeent ñii di Man City kon dal di dugal kon lolu moy li nga moy match bi ñu football ñom wa Barcelone fofu la ci Amérique gëna bi ñu seen prestation yi Man City nak itam nañu fi ay match bu yàggul rek gis ngeen fi amoon nañu fi defet seen diggante ñi di wax AC Milan voilà ñu ngi wéy li nga xam ne mooy seen pré foofu la ci Amérique match boobu la ñu leen xamal ne ba tey ki nga xam ne mooy goneek Sénégal gi ñuy wax Mikayil Ngor Faye bokkul ca bokkuloon ci match boobu la nee nañu nag dafa am li nga xam ne mooy ay méttit yu mu doon soxaale ndax dafa am li nga xam ne mooy gaañu-gaañ ci li nga xam classico amical la nag el ko amical xam ngeen ne amoon nañu ko niki daaw ren ji dinañu ko amaat voilà foofu la ca Amérique boobu nag ñu gis ne voilà ci samedi bii lay doon jël nañ ci taskatu xibaar yi nga xam ne voilà mooy Mundo Deportivo ñu ñuy xamal ne daal kii di Michael Ngor Faye dina ci dal di bokk loolu nekk loo xam ne lu am solo la ki nga xam ne nag mooy Hansi Flick xam ne moom mooy tàggat équipe boobu di Barça voilà gannaaw bi mu joué kon match mu njëkk ci lii di pré-saison yile dal dinay xam ne ne kat moom li nga xam ne mooy yéene mooy dal di taxawal Barça boo xam ne daal da koy tabax comme ni nga xam ne noonu la Pep Guardiola tabaxee Manchester City mu ne moom programme boobu la am wala bokk lu ñuy rek loolu ngir dégg nga maam tabax équipe bi nga xam ne mooy Barcelone voilà loolu mooy li nga xam ne mooy yéene moom kii waaye nag seen rival bi gën a mag ca Espagne te Real Madrid moom itam tey jii guddi voilà tey jii lay doon muy match boo xam ne 0 heure 30 lay doon muy match boo xam ne war na diggante ñii di waa Real Madrid ak AC Milan kon Carlo Ancelotti moo war a janoo ak ancien club am bi nga xam ne mën nañu wax ne daanaka li mu def ci Real Madrid def na ko fa voilà gagné na fa li nga xam ne mooy Ligue des champions comme joueur naka noonu it def na ko comme entraîneur a du koy def foofu naka noonu it ñu gis mu koy def ak équipe bi de Real Madrid mu war a janoo kon ak ancien club am boobule match bu am solo comme ni leen ko waxee AC Milan bi nga xamante moom la wax Rapid Vienne avant loolu am na match bu ñu woon ñetti match kon dal nañu ko joué ñoom waa AC Milan jamono bi Real Madrid ñoom ñu ngi toog a seen match bu njëkk ci li nga xam ne mooy pré ji lee waaye nag ñu gis ne équipe boobu di Real Madrid moom am na ci seen yoo xam ne dèjà ñu ngi ci vacance ba léegi waaye am na ci ñoo xam ne jot nañu dellu si gis na ki nga xam moom la Antonio Rudiger dal di koy gaañ ni ki démb dal di ko tàkkale obstacle bu am doole sax voilà ba ñu jàpp ne dafa am blessure waaye nag ki nga xam ne mooy Carlo Ancelotti bi ñu ko laajee lu jëm ci loolu ci conférence de presse bi mu doon amal ni ki démb mu ne daf ko doon accueillir maanaam loolu moom na ko bàyyi xel moom nag loolu la def ak ki nga xam ne mooy Endrick bi nga xam ne voilà daf ko dal di tàggale ni ki démb ci entraînement yu tar yi nga xam ne ñoom waa Real Madrid doon nañu ko amal loolu mooy commentaire Rudiger na koo xam xam ne ku métti ay mbir la voilà boo koy seetlu rek ci équipe yi nga xamante dañuy faral di daje ak Real Madrid daanaka seen joueurs yi gën tàng voilà moom daf leen di faral di ñamal ko présenté ti kii di Rudiger ko it ak ki nga xam ne mooy Erling Haaland voilà kon lu ni mel ñi nga xamante ne ñooy loolu la def ak ki nga xamante mooy Endrick ba noppi nag yooxu ko na ko nag dëgër voilà bi mu ko taakalee ba mu mënoon gaañu daf ko dal di yuuxu na ko jogal te nga dëgër boo demee ci duel yi dëgër loolu la ko xamal moom kii di Antonio Rudiger kon Carlo Ancelotti moom amul ci jaaxle ndax li mu xamle mooy dal di renforcer équipe bi gannaaw bi nga xamee ne gis nañu ne kii di leen yoroo moom rëcc na leen li mu xamle mooy déedéet Real Madrid dootul signé beneen joueur rawatina ab défenseur mu ne bi tëj nañu ko kenn dootul dootul te jàpp naa ne sax kenn dootul génn moom loolu gën a njort ndax kan mu ne ki nga xam ne mooy David Alaba dafa blessé woon te mu ngi commencé tane mu ngi ñëw léegi bi ñu able mu ne kon ñoom soxla wuñu ñu keneen koo xam ne war na jóge ci biti lool kàddu yoo xam dal dina jóge ci Carlo Ancelotti gannaaw loolu tam ñu gis ne ki nga xam ne moy Lamine Camara mom dal nañ koy présenter niki demb ak équipe bob nga xamantene moy AS Monaco ñako dalal nak di ay mbokam gis nañu ku ci melni Ismail Jacobs wala dal nañu koy dalal ci li nga xamanteni wala moy anam gogulé niki demb la dal di xatim li nga ne moy contrat juroomi at ak équipe bob nga ne wala moy AS Monaco Ismail Sarr mom itam signé na juroomi ati contrat bu ñu sukkandako ci Fabrizio Romano gannaaw bi mu amalé visite médical am niki demb mom itam fofu la ci Crystal Palace kon mom xeyna du ñak tay wala suba wala ci besi la di yeen ko gis mo commencé entraîner équipe bobu la ndax matna jour Crystal Palace la ci jamono bi ñuy waxe ak yeen walum Ligue des Champions nak ci lañu koy Ligue des Champions bi nga xamné xam ngeen ran ji dañ koy soppi ba ñu xamone mom dotul amati mooy équipe bu nek wala groupe bu nek am ñent équipe voilà dégg nga maam ñuy doorante ñaar da ci genn ñaar jaari fële kenn dem Europa League nekatul lolu da xam ngeen fi ni ne pool bu nek juroom ñetti équipe lay doon loolu nak nek lo xamné tirage bi dañuy wax né du yomb ben yoon motax nekul né ne koy def comme dañu ko daan defee manam dajé tek ay bol ki taxaw fi ki taxaw fe ñuy dippi ay bul lolu buñ ko naré def né dañu fa lañuy yendu fa lañuy ñuy ndax équipe bi dañoo bari te dinañu soxla lu ci bul ngir def ko motax tax ñi UEFA manam dal bi yon dañuy sukkandako ci ay ordinateur manam dal di def li nga xamanteni moy tirage bobule machine akoy def nekkul lo xamne kon dañu koy def manuellement liko waral moy bul dinañ ko dal di soxla ak li nga xamne moy 36 ci ay bol voilà 36 ci ay bol dinañ ko soxla ku nekk team ben way bul dinañ leen soxla lol nekk lo xamne ne liggéey bu jafalay don doon te minimal ba mam maam ñu dal di koy soppi manam ci ay machine wala bok machine lañ lañuy defaree li nga xamanteni moy tirage au sort boobu nga xam ne war nañu ko amal la 29 août bi ñu dëkkmal maanaam fileeg weer ci la ñu def tirage su ligue des champions boobule waaye nag ñu gis ne buñ ca tegee benn fan wala ñaari fan la 31 août ci la xam li nga xam ne mooy datu match yi loolu nekk loo xamante ne kon voilà dinañ ko daal xam la 31 août kon loolu mooy li nga xam ne mooy xibaar bi tirage au bi nga xam ne war na xew ci ligue des champions bi at mile ci machine la koy defee maanaam ordinateur waaye nekkul loo xam ne rek maanaam ci euh, dañuy taxaw voilà di ko def manuellement comme nañu ko daan defee loolu coppite boo xam ne ñii di UEFA dinañ ko daal di amal ci li nga xamante ne mooy tirage au sort bii ñu dëkkmal xam naa nag ñu bari dinañ leen xaw a jaaxal ndax xamuñu woon lu nu mel xanaa ba ñu yegg ci rek ñu xool ba xam mbir yi naka lay tëddee waaye daal loolu mooy li nga xam ne moom lañ jëlee ci taskatu xibaar équipe yi dañoo bari trop ndax bu ñu xoolee groupe a baax et groupe bu nekk mbir mi dañ koo dal di soppi ci wàll yëpp loolu mooy li nga xam ne tey ji dal dañ koy jëlee ci taskatu xibaar yi gaay moo ngi noonu loolu li fi gënoon fees dinañ dellusiwaat ak yeneen info way leen di topp Sen Sports